bewte boobu ñu bewoon ba nga xamante ne bis am na ab waay joo xamante ne abu jël daf ko ameloon xaalis nangu ko fay papa Alisa da ngeen koy dégg ci gàmm bu koy nettal mu ne waaye kii leer kenn rek la teg muy nit yonent bi soo demee ci moom dina ko fay waa ji jooy fu ne ñu ne kii kooku mënuñ ci moom dara ñu ne waaye soo demee ci Muhammad moom mën na ci moom dara ba keroog ba Muhammad ñëwee di ko wax fayal kii borom mu mu tiita tiita tiit bu fay ba doole ko dañoo bewoon otee woon daal bàyyi na nag ki dàq loolu lënd mu bewte yàlla ak ñoo fegalee lor yeeg musiba yeeg ñaaw ñaaw yeeg ci kaw moo tax bàyyi ak affaire am sax sooxale ñaaw parce que moom daf ko wax mbiram ñaawul daal ndax dafa ne ay bax yi wal aswa ak ñaaw ñaaw bi nuuril Moustapha ci leeru yonent yàlla moom saa sam la ko yàlla fegalee loolu kafaa nii mu ne fegal na ma it ba léegi deuxième kafaa nii makaral maakiriina pexe pexekat yi wa kaydu moom ak seen pexe waaye léegi lan mooy pexe pexekat yi ak seen pexe xam nga dafay dul répétition mais du répétition kafaa durra fegal na ma loraange wal baxsaa ak ñaaw-ñaaw ba léegi anniya ci man wal jafa ak becc ak li ñuy wax beccangal léegi kafaa nii bii daf koy décortiquer dafa ne fegal na ma makaral maakirine lan mooy pexe pexekat yi wa kaydahum ak seen pexe xam nga dafa am lu ñuy wax makr ak kayd makru makru mooy pexe yàlla sax da koy wax ci alxuraan mu ne ñu ngi makr ba makaru pexe offensive makr mooy pexe bi nga xamante ne ñun toog nañ waxtaan ne non gis nga noonu bi noonu bàyyi bi fi ngeen koy jaar wala suba bunt bi dañuy tëj ñu bàyyi ko mu dugg fii su duggee nii rek daal fii bi rek mu jàpp ko su ko defee ñu tëb wàcc téye xam nga loolay makr mooy gars yi ñu doon réunion di toog naan fii dañ koy jaar fii dañ gas kàmb ci fii loolay makr léegi quand il passe à l'action nag ba ñëw nag taxaw affaire bi di xaar nag ñoom ñëpp taxaw di xaar yonent bi di dox pour dugg ci kàmb gi loolu mooy kayit comprendre kon bii mooy pexe xel bi bee bee mooy application bàyyi ne nag man yàlla daf maa fegalaat beneen yoon ci pexe pexekat yi ak seen pexe mooy pexe bi ñu pe xalaat ci seen xel ba tëral ko mooy plan bi loolu la ñooy tëral plan ak pexe bi keroog ba nga koy appelé ci àll ak ak kii moo tax dafaa kon man bàyyi yàlla fegal na ma man bàyyi durra loraange wal baxsa ak ñaaw ñaaw anniye wal jafa ak beccangal yàlla tamit daf maa fexeel tamit daf maa daf maa baareel beccangal lan mooy beccangal mooy nit koo xamante ne xam na ne yow lii mooy sa cër ci yàlla mu ignoré ignoré mu doyadil xam dafa am lu ñuy wax wàññi wàññi wàññi nit ak doyadil nit ñaari nit yu uteel ñaari mbir yu uteel wàññi nit wàññi nit mooy koo xamante ne am na dara lu rëy nga wàññi mu mel ni amut wala nga bëgg woon ah yow ak yaag sa daraje bi wala yaag sa xaalis bi wala yaag sa coo xam-xam gi wala yaag sa mbooloo bi faalew ma dem loolu xam mooy jéem a wàññi mais mënoo ko wàññi doye dal nag mooy lan nga gis ne ni kii yow wóor na la ni kii am na cër moo xam ku borom alal la moo xam borom xam-xam la moo xam ku baax la moom lu mu mën di doon mais nga mel ni ku ko gisul daal comprendre su ko gars yi nuyoo ñaar loxo sax nga ne ah waaw na nga def seen seen seen bi yaa ngi jàmm ça va bien retaan nag loolu mooy beccangal bàyyi nee na man yàlla daf ma aar ba kenn du ma beccangal te soo xoolee bàyyi ku ko gis rek sa ruu bi naw macha allah par force soo koy jox cër sax di simmi naa ay cër moo ko bañee man nan laa def ba ba nuyu ko sax te moom xaw ma nu mu demee su ma doon kii ah waaye mais yow ñu foogoon ne doo ko nuyu ah waaye man daal xaw ma bàyyi nee na yàlla man daf maa fegal xeetu loolu yëpp mu ne man man yooyu yëpp du ma sax ku ma ko def du ma yàqal dara loolu chef de ramière sax pour ngeen xam suñu sëriñ ko yàlla may aussi moo tax lettre jaareel rasaayil ba gars yi jaaxlee ba wax wax jooju noonu ne bàyyi ñu de dañu ragal ne dañ lay ah sëriñ si ah mer nan de mais ragal lorange wàcc ci yow de mu ne maa ngi leen di giñal ci yàlla ne man lorange du àcc ci man te man bàyyi maa ngi leen di giñal ci yàlla ne sama sama bàyyi sax yàlla won na ma ne maa ko ëpp at te bàyyam alaaji abdoulaye soixante quatorze ans la am moom soixante quinze ans la dund ci lettre boobu la ko wax te loolu ba mu koy wax ba muy wax loolu bàyyi amul quarante amul cinquante ans amul soixante ans amul sax soixante dix ans wala sax même su amoon soixante dix ans wala soixante treize ans wala soixante quatorze ans dem ba ne leen man sama bàyyi sax yàlla xamal na ne maa ko ëppaat seen lonaange yi ngeen tiit yi ngeen ma ragalal yàlla loolu du agsi si man ndeysaan taalib yu ko bëgg l'avenir à à tranché en sa faveur gis nañ ne dund na ba ëppal baayam baayam baayam comprendre kon dafaa nii fegal na ma pexe pexekat yi mooy pexe plan tëral plan tëral waxtaan pour yàqal ko ak kaydahum mooy pexe bi nga xamante ne dañ koy mettre en application kafa durra yàlla fegal na ma loraange wal baax saa ñaaw ñaaw anni ya ci man wal jafa ak mbette nga mooy ñàkk koo faale jox cërëb mooy ñàkk mooy doy dal yow alzamani ndax man au delà de ça man yàlla daf ma kole daf ma takkalees na ma zikral xabibi di fàttaliku sama soppe di ko tudd wa madxahu ak di ko tagg ak di ko wëy madx mooy wëy mooy poème mooy ministère des poèmes zikr mooy fàttaliku yonent bi waaye madxahu mooy di ko tagg ginnaaw ba mu ko fàttaliku alayhi salaatullahi yàlla na nekk ci moom julli yàlla maa shaariqun xafa wala maa xafa shaariqun tant que dina nëbbu liy feeñ tant que liy feeñ tant que liy fenk dina nëbbu yàlla na sama julli ci moom di nekk ci moom bi maanaam tant que jant gaa ngi fi nekk di jóg di tëdd rek di jógaat di tëdd di feeñ ak a nëbbu mooy tant que àddinaa ngi am la bëgg a wax tant que dund ngi continuer am yàlla na sama julli ci moom di nekk te tant que tamit tant que zaahir a ngi am baatin di am tant que liy feeñ a ngi nëbbu yàlla na sama julli ci moom di nekk kon dépassé na loolu mu ne alayhi salaatullahi yal na nekk ci moom julleb yàlla waaye nag sama julli bii nga xamante ne maa ngi koy julli ci moom maa ngi ñaan yàlla julli ko ci moom mu bu mu doon julli bu ndaw salaatullahi kala xatri yàlla doon julli boobu day mel ni day tolloog tokki tokki taw yi xatri mooy taw bi suñ tokki moom benn benn loolay xatri moolam taw bu mu sa am ak di mu fasoo am sama julli ci moom yàlla na tolloog tokk tokk taw yàlla mel ni tokk tokk taw wa wa wal xasaa yàlla na nekk ni tolloog li ñuy wax jëmbaraay jëmbaraay mooy xeer yu tuuti yooyu noonu dañ koy dégg sax ba mu àddi ko nekk ci gàmm ñu ne keroog yonu saa sam ci xare badar ba xare ba bu mu doyee waar affaire bi bu daal di jël jëmbaraay yi rek mooy xeer yu ndaw yooyu noonu rek daal di ñaan jox abodor awa Ousmane sànni leen ko gars yi bëri deewaloo ñu ne bon ñu ne bon ba leen ko sàndee ba mu ko joxee ñoom andi na fii gars yi sànni ko rek yëpp dee mu ne mbooloo mi deewaloo ci jëmbaraay yu ndaw yooyu yëpp ñu ne loolu ndigal la yàlla ne keroog ba nga sàndee sànni woo waaye man maa sànni ba maa ramayta is ramayta wala kinna la rama keroog ba ngay sànni ba nga sànniwee sànni woo de man yàlla maa sànni moo tax ñoom ñëpp ñu dee bokkaan xeer yu ndaw yooyu la ñuy wax jëmbaraay mu ne sama salaatu ci moom sama julli ci moom yàlla nekk léegi nag lan mooy julli ci yonent xam nga julli ci yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam dañ ko war a dégg tamit julli ci moom borom xam-xam yi dañu ne mooy jeex ci moom waaw julli ci moom mooy jeex ci moom waaw julli dëgg sax même julli dëgg sax xam mooy jeex ci yàlla rek soo ne allahu akbar yàlla gën a màgg kon lépp loo am war nañ koo màgg rek war nañ koo màgg ba yàlla gën a màgg lépp te yàlla su gënee màgg lépp nga am moom rek ngay gis boobu jeex ci moom ba nga ne allahu akbar rek boo nga faa mën a jóg ndax nga xool gis ne xana yow sa màggaay yow yaay kan lan nga lan nga looy lekk ñam fan la jógee ci suuf matière bi garab la garab bu koy dundal matière organique ci suuf la ndox la ñam bi tax nga lekk ba am dëgër fan la jógee ci yàlla kàttan gi moo indi ñam bi moo ko indi ci yàlla nga ne da nga jublu penku penku bi sax yàlla moom penku te moo la ne nga jublu foo jublu ci penkom ndox mi nga jàppee moo ko moom alxuraan da ngay jàng ne maa ngi jub ci réer réer naan maa daal jaamu yàlla alxuraan am na mu ne ana yow yaay ana nga yow ana sa julli yow ku dar bi rek da ngay am problème kenn mënul julli dëgg te xamoo yàlla xam nga loolu mooy dëgg loolu la Baye wax ah kon nag nga xam ne ne dëgg dëgg loolu jar naa xam léegi nag mu ne la comme nag léegi ñaari mbir dafa am pour nga julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il faut nga xam dayoo ndax yàlla dafa ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna yéen way gëm yi julli leen ci moom gars yi ne waaw nu ñuy jullee ci koo xamante ne moom dafa set dafa foor dafa yëkkatiku mais kooku nu ñuy jullee ci moom rek yàlla jàngal ñu ko indil ñu siixa bu ñuy wax salaat fati mooy forme bu ñuy wax salaat fati ñuy jullee ci moom noonu xaq ak xadri yi kéem dayoom waaye kéem dayoom fan ci yàlla comprendre léegi loolu moo waral comme yow mënoo julli ci moom tuuti nga ci moom moo tax nga ñaan yàlla yow yàlla yàlla nga julli ci moom moo tax soo xoolee salaatul faati mbiru aarif la soo demee ba tarbiya ci nga xam ne naka de yow wérdoo salaatul faati na yow soo xoolee mbir bi allahuma ay yow yàlla salli jullil ala sayidina suñu suñu sang muhammadin muhammad il faatihi al faatihi ki nga moo ëbbi li maa wax la xel yu tëji woon wal xaati mi ki nga moo tëj li maa saba xel yi jiiti woon naasiri ki nga mooy dëgg dimbali dëgg alxaq bil xaq ak dëgg wal haadi ki nga mooy gindi nit ñi ilaa siraatikal mustaqim ci sa yoon buy jub wa ala ali yow yàlla julli boobu yaa bugal ci ay ñoñam xakka kadri yi kem dayam wa miqdaarim ak darajaam ci yow al asi bu mag bi yow kon lan nga def ah kon léegi da ngay gis ne kon ndekete loolu mooy waral nag sooy def loolu noonu kon yow ba léegi jëlee ko ci yonent bi comprendre ngeen kon léegi maanaa julli ci yonent bi mooy jeex bi nga xamante ne moom la jeex comprendre ngeen loolu lu jar a xam la lu bàyyi lu jar a bàyyi xel moo tax kon wa alzamani mu ne kon man bàyyi yow yàlla yàlla nga julli ci moom julli goo xamante ne kal xatri day tolloog tokk tokki taw yi wal xasaa ak jëmbaraay yi xeeri tuuti yi wa kal ramli ak suuf su nooy si raml mooy suuf su nooy soo leen déggee ramli soo leen déggee ramli parfois Cheikh Aliña kii day def ramli mooy day jël feuille day suuf di def ni ah waaw suuf géej suuf su nooy si lépp suuf yooyu gis nga nu mu bëree man yàlla na yàlla nga julli ci moom mu tolloo noonu waaye wala ko ah kon moom jox na ko xàqal wal awraaq yàlla na julli yi tolloo feuille garab yi xobu garab yi maadaama Mustafa kenn yonent yàlla moom saa sa muy doon koo xamante ne dañ ko war a topp te ni ñu koy topp tant que mu ngi doon ku ñuy xencu di ko topp rek yow yàlla yàlla na julli ci moom. kem julli yi ma la wax ni ak ci anam yi nii xam nga loolu lu muy jàngal nekkete yooyu noonu yëpp dañuy julli ci yonent bi nekkete soo gisee pepp yi ñu nu muy bëree ak tokk-tokk taw yi nekkete loolu yëpp day julli ci yonent bi waaye mu ngay doxal séeru di la wax ne lii kaw na gi nii lay jullee ci yonent bi te loolu lépp doyoo ko yàllaa ngi utilisé kaw na bi julli ci yonent bi ak loolu xadre yow yàlla yàlla nga jullee nag ci moom xal xadri kem dayoom ci nit ñi kem ñun duñ ko joxee cër wal mixdaar ak niñ ko joxee cër yow mooy ñaar yëpp am na ngay bosam rek mu ne kem ñun ko joxee cër ñun ak moom ñun ko joxee cër mu ne yow yàlla yàlla nga jullee ci moom noonu bat nan ci lu nëbbu wa zaahiran ak ci lu feeñ madaa dëhri biiru jamono biiru biiru temps yaa man xadaali kullama astafa parfois nag day jékki-jékki rek dugal ci mayam waaye suy tagg yonent bi rek parfois day jékki-jékki rek waxaale la mayam may bu ko yàlla may mu jékki-jékki rek suruxal benn affaire mu ne la yaa man xadaal yi yow mi nga xamante ne yow yàlla yaa ma woo matalal kulla ma ma safa lépp loo xamante ne bëgg naa ko yow yaa ma ko woo matalal yow mi nga xamante ne yaa ma woo matalal indil ma lépp lu ma bëgg kon naka de bàyyi lépp lu mu bëgg yàlla jox woo matal ma yusuba muhammadul abdullahi muhammad abdullahi jaamab yàlla la moom mooy jaamab yàlla bi waaye saydu xalq yi mooy sangam mbindeef mooy jaamu yàlla bi ndax yàlla amul ñaari jaam ak ñett de benn jaam la yàlla am mooy yonent bi loolu la bay wax mu ne yàlla kenn rek la faal xam ne ñun ñoon ñooy jaamu yàlla déedéet yàlla kenn rek lay xool kenn rek la faat bàyyi nee na mooy yónni yonent bi nag moo ñuy faale ñu am na ñaar dimbali ah yow de wa wa sallim mu ne muhammadun muhammad abdullahi jaamu bi yàlla la sayyidu xalqi waaye mooy sanga bindee fi wa sallim yow yàlla yàlla nga sëlmal ci moom yàlla nga ko may mucc alayhi jëmale ci moom war xaman na yàlla nga ko yërëm waaye yow yàlla wa sharifa yàlla nga nga ko teral waaye bàyyi su nee yërëm alxuraan dafa am aaya bu yàlla aaya bu yàlla di wax naan yàlla su waxee yër yërëm yërmande arrahmanu alal arshi istawa mu ne le le seigneur yàlla mu ngi ci gàngu wa naayam ba toog ca gàngu naayam gi ñoo aras istawa mu toog ci toogaay goo xamante ne nag toogaay gi lépp a yemoo bi maanaam toogaay gi toogaay lépp nekkin gi mooy toogaay bi mooy yàlla nekk bi mu nekk ah loolu mooy toogaay gi bu leen kenn nax nag ndax benn sëriñ bu mag bàyyi dafa demoon Arabie Saoudite dégg mu koy naan waa arrahman alal arshi istawa yàlla dafa toog ci séetam bi ci màkk mu def daal si daal comme ni ma toogee waaw su toogee bu mel ni kii tànk yi nii comme ni ma toogee comme ni ma toogee ci sama chaise bi yàlla ngi toog aras noonu bàyyi na ko déedéet sëñ maa ngi jégalu dama romb sa daal bi déglu yi ma déglu kii waaye nag lii d'accord mu ci ndax yàlla jom na di toog comme nit ñi lii féete suuf féete suuf lii féete kaw kaw waaye nekkin gi mooy toogaay man foofu laa leen koy leerale mu gàmm nekkin gi mooy toogaay gi foofu laa leen waaye ay waaw kay mu jeex léegi nag mu ne al rahman alal arshi istawa moom yàlla mu ngi ci kaw aras mu ne lu tax yàlla tuddee rahman foofu boppam bàyyi ne lu tax tuddeewul rahim foofu wala tuddeewul latif wala tuddeewul beneen ndax nee na ron aras ñi fa nekk mooy mindaafuñ ah mu ne comme mindaafoon yi ñoo fa nekk te ñoom dañuy soxla yàlla xool leen bëtu yërmande ba pare su leen yërëmee daf leen war a xéwale mu ne rahman loolu lañ koy déggee mooy kii xéwale waaye pas ku yërëm waaye dafa am dégg yàlla mu ne rahman fii mu kii kii yërëmaale waaye kii xéwale ndax soo yërëmee da koy xéwale koy dimbale wala loolu tax mu ne war xamal yàlla nga ko xéwale kon waaye dama nekk yàlla séeru bu koy comprendre wa sharrafa yàlla nga ko yokk teraanga ndax xamu tax ku ñu xewalee rek la nekk dégg tajalat lahu zaatul aliyatu shaadidan wa aynul ama wa tamsi mu'tan wa muthafa tajalat lahu wuññil na ko feeñal na lëwu ñeer ko zaatul aliyatu shaadi jam jëmmam ji moom yàlla tajali na jëmmam ji feeñal na jëmmam ji kii kan wane na jëmmam ji ci kan ci lu simple waaye lu foor la ci loom ku ko xool ku am seetlu ku ne xam na ne lii yàlla def na ko te amu ci benn coono ba koy def te lu simple na ko defee shaadi jam ci loo amul benn coono facilement mu doon loo xamante ni ñëpp di teg seen bët la muy muy kan mu ne te loolu bu koy def boobu yàlla di def tajali ba yàlla di jël leeram boobu di di sàkk leer yonte bi transfert boobu noonu xaaj boobu moom muy xaaj di indi yonte bi mu ne loolu ba mu koy def wa aynul ta ama jëm mi ngëlamande bëtum ngëlamande la yonent bi nekkoon wattam si ak lënd mooy boobu yonent bi nekkoon bay gis ni yàlla dina defee xam nga tax parce que yonent bi mu woon nekk ndax yàlla rek a nekk yàlla suy def tajiri moom rek ay nekk ginnaaw ba mu defee tajiri loolu noonu nekk nag la ñuy tuddee tur man ba ma defee tajiri tey tant que chemise laa sol ma sol sama drap toog ñu ne la oustaz bi wala cheikh bi ah comprendre waaye bu ma solee sama mbubu intellectuel ñu ne monsieur le directeur wala monsieur le monsieur xaw ma lan officier monsieur xaw ma mu ne moxtan mu doon koo xamante ne kuy ay aji maye la yàlla wa muxtafa doon ku koo jox jox koo xamante ni jox sabar fatamamahu fatamamahu yàlla matelees na rabbun borom karimun bu tedd axabahu boo xamante ne bëgg na ko wa akmalahu boo xamante ne matal na ko moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax daf ko bëgg waaye daf daf ko matal moom yonente bi xissan ci lu nit ñi yëpp wa maanaan ak ci nit ñi yëgul wa daafa waaye yàlla fulandil na mu ne yonente yàlla moom sallallahu alayhi wasallam rek mooy koo xamante ne yàlla daf koo may fulandil kon ay mayam te képp ku ko may mayam day fulandil ci yow may bu la nit may day jeex waaye mayu yonente bi yonente bi su la mayee da ngay gis ne da ngay gën a garaaw da ngay gën a fort mu ne loolu mooy sirru mayu yonente bi ndax ku mu may rek da ngay fula day fula nit te keneen ku la may day wàññeeku xanaa nga investir ko moo lay secret boobu la yàlla def ci moom yonente yàlla moom saa moo tax nit ñi di ko rak xabaahu may na ko wa ajdaahu tabeel na jëm ci moom wa xarraba zaatahu yàlla jegel na ko jëmmam ji moom yàlla li xadarati aliyaa ci xadaram bu kawe bi yàlla jegel na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci xadaram bu kawe bi wa ata joxees na ko wa nayafa waaye joxati na ko joxati na ko loolu la li nayafa mooy joxati ko joxati ko jox na ko lu ne mooy may ko benn may rek waaye daf koo may ay may yoo xamante ne lépp lay lu ëmb fa huwa ne moom awalu tawxiid yi mooy njëlbeenu tawxiid mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi mooy njëlbeenu tawxiid awalu qaabilin mu ne yonent bi moom mooy moo njëkk a nangu tajli zaatil xaqi tajli manifestation de Dieu jëmmam ji manifestation boobu yonent bi moo njëkk a nangu mooy bi maanaam yonent bi moo njëkk a nangu ñu bind moo njëkk a nangu yàlla feeñal ci moom xam nga tey jii su ma ñëwee taxaw ma ne la artiste laa bu mag bon dama la loué bon dama bëgg nga ma loué la publicité bi nga génn xam nga loué naa la sama jëmm ci nangul naa ngeen utiliser maa ñu ne waaw diw leen utiliser photo yi kii ah macha allah mu ne yonent bi moo njëkk a nangoo doon jàng fa yàlla moo njëkk a nangoo doon ku yàlla di di di di di di di ci mu ne leer googu noonu ci yàlla ba yàlla di amalee foofu mu ne leer googu mooy yonent bi mu ne kon foofu la yonent bi nangoo mu ne kon tajali zaatul xat mu ne foofu la nekk mu ne te loolu yonent bi moom moo ko njëkk a nangu mu ne kon mooy awalu xaabil mooy njëkk a nangu kuy nangu tajali zaatil xat ki feeñal jëmmi yàlla ji ci dëgg mu ne zax-zaxa yonent bi saa sa mooy kiy soril lépp loo xamante ne jombloo na yàlla jomb na ci yàlla moo ko soril raf-rafa moo yëkkati dayab yàlla moo yëkkati gëddayab yàlla zaxzaxa wa rafrafa waaye dafa mën a poème de ah nga ne neexul ba neexul waaye bàyyi dafa mën a kii am na kuy woote ci dars bi xam naa kenn la ci biir élément fii nii rek boo koy bind nga ne ko laaj ko si kii pour qu'on l'ajoute parce que da nga entendre beneen fii kon mu ne zaxzaxa wa rafrafa mu ne wa awwalu mawjudin yonent bi moom mooy ki njëkk a ki njëkk a am moom mooy ki njëkk a am kuy amal ci moom moom moom lan amal muy amal moom mu njëkk muy numéro un kon naka de un sax yonent bi parce que sooy compter da ngay am ci looy sukkandiku pour compter pour pour kenn ak yàlla un boobu looy sukkandiku yonent bi la ngay sukkandiku sukkandiku lam lay jox looloo yàlla ka nga bëgg a jot ci ki ngay jotaliku mooy yonent bi ka ngay jot mooy yàlla moom mooy ki nga xamante ne moo njëkk a jaamu yàlla wa awwalu maxdumin waaye tamit moom la njëkk a liggéeyal moo njëkk a liggéeyal boromam waaye nee na moom it moom la njëkk a liggéeyal moom bàyyi nee na moom moo njëkk a liggéeyal mooy xaadim waaye mooy maxdum moom la njëkk a liggéeyal yonent yàlla moom saa saa moom moo njëkk a liggéeyal borom moom waaye moom la njëkk a liggéeyal loolu la bàyyi foofu wa aw wa awwalu maxdumin uti a mayees na ko wa ut xifa mayeti na ko bàyyi day utiliser benn mot indi vingt synonyme am jeexale ko pour neexal wéy moo tax may may may may may yi bëri sax comprendre wa awalu maskurin wa awalu zakirin wa awalu maskurun moom yonent yàlla moom saa saa moom njëkk a tudd yàlla wa awalu zakirin moom la njëkk a tudd moom la njëkk a tudd waaye moo njëkk a tudd yàlla it wa awfa lana xirqan sariyan musharrafa yàlla terale na ko moom yonent yàlla moom saa saa teranga yu mat yàlla teral na ko yàlla nob jox na ko noblesse comprendre yàlla yëkkati na daraja fa ata li kulli xalq ginnaaw loolu nag moom mu daal di wëlbatiku ginnaaw bu mu amee loolu lépp ci yàlla mu daal di wëlbatiku fa ata di daal di jox li kulli kulli xalq képp ku am kuy mindee ko yàlla rek kul kul la fawaadi li bépp ngëneel kon ndekete bépp ngëneel bu waaye am fu mu mën di doon ba ci muus beeg ginaar geeg jinne beeg nit geeg malaaka bi ngëneel bu mën di doon mu ne yonent bi moom moo ko joxe du sax yàllaa ko joxe mu ne yonent bi ko joxe mu ne yàlla benn yoon la joxe yonent bi la ko jox léegi moom moo tasaare te pourtant loolu dafa logique parce que tey da ngay dem jëli ci grossiste usine bi yow yaay grossiste bi yaay jox ñëpp ah kon nag bu kenn d'accord ne bu kenn bañ ne nit jaam mun na may moromu jaam loolu tax bàyyi naan yow yonent bi may ma du bokkaale parce que yàlla moom la jox muy séddale ma ne ko may ma jox ma loolu bu bokkaal parce que xam na ne tamit li ñu ko jox ci fa yàlla la jóge kon yàlla ñu yonent bi jox wuñu doy fa ata li kulli xalqin mu daal di wëlbatiku nag ginnaaw bu mu amee loolu jox bépp ñu ndaafoon fa waa dilin ay ngëneel wa ata li ahlil fadli te yonent bi waxuma sax ñu simple ñi mais ñi gën a fort ci ñu yàlla bind ñi am li ñeneen ñi amul li am ñu si lu seen morom yi amul moo leen jox tamit fadlan ngëneel yooyu ñu am wa naf nafa te moo leen joxo joxati yaa ngi dégg naf nafa mooy moo leen joxati joxati leen comprendre naf nafa bi mu mën ko jaar lii rëb yi laa bu ngay jënd lii naf nafa la yooyu la ñuy indi kese comprendre soo xoolee sax naf naf nafa mooy rafu wa zaada mooy moo leen jox dolli leen daal joxati leen joxati leen parfois da ngay gis koo xamante ni day am milliard yàlla jox ko ko waaye teraw suba mu amaat beneen marché encore une fois mais gars yi daal du ñu doyal mbi dig dig mu amaat beneen marché yéen ak mu xalal de ak yéen moom lu mu doyee ci liggéey bi muy liggéey di créé ci beneen société amaat di amaat bi nga jox joxe yooyu loolay naf nafa mu ne yonent bi moo fekk ñi nga xamante ne yàlla wër xéwal na leen mu jox leen ñu am de ñëpp xam na ne ñii am nañ waaye muy leen di dolli di leen dolli ñi nga am tamit benn yoon la nga am tamit moo leen jox comprendre nga yàlla nañ boole bokk ci ñoom ñu leen jox nag di dollee ko dollee ko dolli barke Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu comprendre ngeen bihi ci moom baana ci bir na feeñee na sirrul kainaati secret wu nekk teefi mooy mindaa koon yëpp seen siru mooy yéen yàlla moom parfois nit ñi ne ni yàlla am lu mu wax ñu ne fan la ko waxee ñu ne siru moo ko wax te siru mooy kan mooy yonent bi ndax moom sax moom moo xam ne moom ñu ne kon loolu ci siroom la ko waxee looloy siru loolu di wax ne mooy mooy moom looloy siru ci nit comprendre ngeen leneen ni nag mooy ruuxu mooy ruux bi dund mais lii wax loolu ci moom mooy siru ci moom comprendre ngeen mooy sa siru moo tax mu ne mooy sirul kainaat nit li tax mu taxaw xam nga baatin bi zaahir bi mooy ñam bi mu nekk ak wér gi ñam gi moo tax mu taxaw kattan gi moo tax miirul waaye ruux bi nekkin gi secret bi tax mu taxaw mooy nekk bi yonent bi nekk ci moom soo bëggee gën a taxaw nag ci baati del julli ci moom rek gën a taxaw looy sir mu ne bihi baana ci moom la biree la feeñee sirul kainaati secret nekk dee fi fa aadamu la dalee ca aadama fa nuuxun jàll ci yonti yàlla nuux fa ibrahima topp yonti yàlla ibrahima fal kulla ñii ma tudd ñëpp ak xafaa yonent bi yonent baa leen may yonent baa leen jox li ñu am waxul yàlla de waaye dafa garaaw da lay doxal lu leer mu ne ñoom seen may yeneen bi moo leen ko jox kooku léegi lan koy gën a leen jox ah mu ne um ay axtaaxum lépp lu leen yàlla jox rek may bu munti doon ay axtaaxum may bu munti doon rek ci yeneen bi njëkk alayhi salaatu wala sax su dee yàlla moo leen jox te sikk amul ne jox mu jox yonent bi mu jox leen mooy jox bi yàlla même su dee yàllaa leen jox tant que mu ngi jël ci moom yonent bi tomb di leen jox rek ci yonent bi la jóge kon ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy seen source looloo tax keroog ma ne amul kuus na nangul woon yonent bi yàlla moom sa ci ndax bàyyi nee na ñëpp jaayante na ko yonent bi sëgam ñëpp jaayante woon nañu ak yonent yi kon yonent yi tamit jaayante na woon nañu ak ñoom fa Moussa naka yonent yàlla Moussa fa Isa naka yonent yàlla Isa Jésus summa xibbi ginnaaw topp sama xibb sama soppe Muhammadun Muhammadun ah kon dafa mel ni am na ñaar Muhammad moo may Muhammad comprendre ngeen ndax yonent bi sax. waaye jàngale ne yonent yàlla moom saa tam sax pour julleem wér il faut mu wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah te moom mooy yonent bi mais moom même suy julli il faut mu ne maa ngi seede ne amul benn ko dugg yàlla te maa ngi seede ne yonent yàlla moom mooy doomu yàlla te moom mooy yonent bi ah moom mënoon na ko ci génne waaye il faut que sax moom mu jaar ci pour affaire am baax xam nga lu tax parce que mbir bi benn serveur la boo xamante ne il faut que connecté connecté bi jëriñ ci serveur boobu mooy xaqiqatul muhammadiyya kon xaqiqatul muhammadiyya la la bàyyi di présenté kon ñii dox xaqatul Muhammad yi lii doy na ñu xam ñu yonent xaqatul Muhammad yi la lay présenté mais nag kon ndekete yonent bi maanaam yemul ci benn Muhammad bin Abdullah doomu Abdullah waaye yonent bi